ginnaaw euh, antenne bi mu yoroon ñu nag ñu ngi foon euh, fële nga xam ne moom mooy euh, si biir salle 4 fii nga xam ne foofu la audience bi di doon amee. lu ñu fekkee nag mooy li nga xam ne moom mooy kadduy kadduy capitaine Touré Abdou Nguer la ñuy jël en balaa ñuy balaa ñuy continuer li nga xam ne moom mooy résumé audience bi dañuy dañuy dañuy jël ab ab Abdou Nguer wala ñu demee noonu rek pour pour pour. soxla bi rek. ni ñu manipuler ci waaw ñu wëy rek ñu ñu ñu bàyyi ko mu dem mu dem moo nekkoon Abou Nguer euh, par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, dañu doon xaar ni fi nga xam ne moom mooy au niveau euh, de salle salle audience bi salle audience bi nag xawoon na interrogation yi xawoon na. métti trop ci diggante li nga xam ne moom mooy euh, Adji Sarr ak ki nga xam ne moom mooy Ndeye Ndeye euh, Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndeye Khady Ndiaye mais lu ñu fekkee rek mooy kàddu capitaine Touré capitaine Touré lañ fekkee moom. mu def euh, li nga xam ne moom mooy son interrogation moom nag euh, li nga xam ne fu mu téye woon la téye woon ba léegi nee na li nga xam ne moom mooy sa procès verbal moom dañ ko dañ ko modifié ba léegi maanaam amul euh, benn rapport bi mu joxoon li nga xam ne mooy moom la defoon bi nga xam ne mooy biir gendarmerie rapport boobu yëpp dañ ko modifié maanaam am na sax des ay photo yi nga xam ne ak ay documents yi nga xam ne dañ daf mu ngi woon ci rapport bi mais dañ ko dañ ko enlevé. moom ba léegi kàddu yooyu la la fësal ginnaaw loolu ki xam ne mooy le procureur de la république xawoon na ko sonal tuuti tuuti ba posé ko question sax bu concerner euh, appréciation bi def en tant que euh, un citoyen sénégalais euh, en tant que ex-officier ak rapport par rapport appréciation par rapport ak rapport gendarmerie moom capitaine Tour di xamale que le procès verbal et le rapport il y a une différence mu ne entre le procès verbal et le rapport il y a une différence moom capitaine Touré moo wax loolu mu ne euh, cette partie euh, n'a pas euh, été rédigée par moi mu ne par contre moom capitaine Touré ba léegi mooy wax mu ne sur le procès verbal qui a été modifié on ne devrait pas changer une virgule sur le procès verbal mu ne je suis responsable de l' enquête et pourquoi mes écrits ont été modifiés mu doon ay laaj yi nga xam ne tamit jot na ko tuut baaraam tuuma ki nga xam ne moom mooy euh, le procureur de la république ginnaaw ba mu ko sonalee mu posé beneen question ki nga xam ne mooy procureur de la république ginnaaw ba mu ko mu ne ko pourquoi la conclusion générale se trouve dans le procès verbal de synthèse mu ne en plus de ça il y des déclarations qui n'ont pas été mises dans dans le procès verbal et même des photos mooy lu ñu leen wax noonu sànq. ginnaaw loolu tamit capitaine euh, Touré ñëw na euh, tamit si li nga xam ne moom mooy son première intervention si salon bi nga xam ne moom mooy euh, biir Sweet Beauté moom boobu nag nee moom ba mu ñëwee si biir salon bi mu ne quand je suis je me suis rendu au salon pour faire mes mu ne dafa constaté ak amoon na ay caméra dans la pièce fi nga xam ne foofu la massage yi di doon déroulé mais mu ne benn caméra maanaam benn camera caméra enregistré wu ko woon si si li nga xam ne tamu nekk si biir pièce bi. Euh, bañ jàllee si ki nga xam ne mooy capitaine Touré ñëw nañ ci ki nga xam ne mooy Ibrahima Koli Ibrahima Koli moom moo nekk euh, ki nga xam ne moom mooy euh, le mari de Ndeye Khady Ndiaye moom bañ ko appelé à la barre nag mu ne ki nga xam ne mooy Adji Sarr ba mu ba mu mu ne quand Adji Sarr a sorti au Sweet Beauté je l'ai vu entrer dans un véhicule 4 x mu ne gis na Adji mu génn si benn véhicule 4 x ba mu génnee si salon Sweet Beauté bi mu ne Adji Sarr dafa ñëw jox ko xaalis maanaam xaalis bi muy fay. Ah, su su client bi fayee pare mu ne mu mu mu yëg si kaw gis dégg ko muy wax au téléphone avec ki nga xam ne mooy le chauffeur de Mamour Diallo moom ki nga xam ne mooy Ibrahima Koli di euh, euh, mari de Ibrahima Koli moom mooy euh, ki mari de de Ndeye mooy wax loolu noonu mu ne chauffeur Mamour Diallo si boppam moo ñëwoon chercher ki nga xam ne moom jël si ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr mu ne après nag seetlu na ni ki nga xam ne mooy Adji Raby dafa am ay Euh, comportement yi nga xam ne mérité woon na des questionnement parce que mosul woon gis euh, ay Sarr comporter lu ne mel mu ne nag après gis na Sidi Ahmed Mbaye moom ba léegi si dossier bi gis na ko deux fois euh, foofu nga xam ne mooy Sweet mu ne la première fois dafa ànd ak ki nga xam ne si kaw terrasse bi mu ne boobu ay booru une heure du matin la woon mu ne la seule réponse bi nga xam ne moom la moom la ko Adji Sarr wax par rapport ba nga ko laajee kii kan dana ko ay kii nii Sidi Ahmed Mbaye sama sama oncle la. ginnaaw loolu déglu nañ également ki nga xam ne moom mooy bu ah, Seynabou Ngom Seynabou Ngom ah, mu doon une ex employée de Ndeye Khady Sarr également moom tamit jot nañ ko woo à la barre ah, moom ba mu ñëwee nag ay kàddoom dafa chargé ki nga xam ne moom mooy Ndeye Khady Sarr parce que wax na ba cité li nga xam ne moom mooy les différents types de massage yu ñoon def lu ci mel ni le massage intégral ba ko juge bi laajee mu ne massage boobu c'est tout c'est pour tout le corps mu ñëwaat mu ne ko le massage de finition ju euh, bi gën ko laaj na ko da ngay wax mu clair parce que c'est un dossier bi nga xam ne tey euh, Sénégalais yëpp ñu ngi siy bàyyi xel mu ne lii di massage finition bi mooy séance massage da doon tourner aux alentours de quinze mille à quarante mille francs CFA maanaam ñoom sax mun nañ dem ba des fois sax euh, ça dépend du client mun nañ am li nga xam ne moom mooy des pouvoirs mu doon des pourcentages par rapport à ça kon li ñu mën a seetlu rek mooy cette euh, dame moom de du nom répondant au nom de euh, Ngom moom dafa chargé ki nga xam ne moom mooy euh, Ndeye Khady Ndiaye ginnaaw ba mu fa liggéey ak ki nga moom mooy Adji Sarr si boobaa nag dégluwaat nañ keneen mais boobu avant ñuy déglu ki nga xam ne tey moom moo moom moo yoroon benn restaurant bi nga xam ne moo embauché woon avant muy liggéey fii nga xam ne moom mooy biir Sweet Beauté Adji Sarr si boppam journaliste si boppam ñun tas ko xibaar dañuy jël suñu téléphone Euh, nañu bu le bu kenn si téléphone naan da bind euh, quoi ce soit mel ni daam ay ordre yi nga xam ne dañ ko jotoon mais kooku see kàddu li ñu mën a jot rek mooy maanaam moom da doon ki nga xam ne moom mooy euh, Ndeye Khady Ndiaye di chargé ki nga xam ne moom Adji Sarr di wax ko Adji Sarr si boppam moom wóoluwu ko woon parce que Adji Sarr mosu ko wax ne moom day liggéey si salon bu Sweet Beauté ginnaaw loolu tamit le juge a pris la repris la parole ba mu déglu interrogation yi. si loolu ñuy xaarandi li nga xam ne moom mooy audience bi nga xam ne juge bi suspendre na ko pour juste cinq minutes xam naa laata loolu incha allah après dañuy dellu fi nga xam ne moom mooy euh, au niveau de la salle euh, salle 4. pour gën a gën a xam gën a xam lan moo lan moo xew foofu noonu parce que en ce moment il ne reste que les euh, mais laataa loolu noonu lépp lu ñu mën a xaar rendi si si projet boobu léegi parce que sénégalais yi daa mel ni euh, sonn nañ si euh, tàyyi nañ si mun nañ xaarandi un un verdict mun nañ xaarandi un verdict mais également mun nañ xaarandi également li nga xam ne moom mooy un beneen renvoi ginnaaw bañ dégloo li nga xam ne moom mooy interrogation yi déglu déglu ñëpp di leen teewlu ab cant si yéen di jëm eh, jugee si ñun di ñëw si yéen di jaajëfal suñu équipe technique bi yëpp di jaajëfal ñi nga xam ne tey ñoo nekk si régie bi ñu nekk tey euh, au niveau de la rédaction di jaajëfal également ne tey ñooy journalistes yi que euh, suba ba léegi dañuy wax gàcci ngaalama euh, ñi nga xam ne tey muy technicien di ay journalistes tey suba léegi ñu bàyyi lépp li ñuy def pour taxaw toog fii wan leen li nga xam ne mooy information ñu bokk rédaction wala ñu ñàkk bokk rédaction di leen jaajëfal di jaajëfal également surtout plus particulièrement ñun ñi nga xam ne tey ñoo ñuy déglu mooy ñi nga xam ne tey ñooy teewlu Sénégal 7 parce que gàcce ngaaraama parce que tey suñ euh, amee fit di def yenn yi je pense que c'est vous parce que ay toog jënd seen connexion comme ni comme ni ko Wally di waxee à tout moment di liker suñu affaire di partager suñuy vidéo ba pare teg si di ñu envoyer ay messages di conseil c'est-à-dire que ñun yéen euh, échange la. amul lenn li nga xam ne maanaam amul lenn li nga xam ne dañ koy nëbboog ñu nag yéen maanaam ñu nag euh, yéen suñu internet yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoo nekk euh, fële sa diaspora mais ginnaaw loolu dama bëggoon dikk si si li nga xam ne moom mooy euh, mm, interrogation bu docteur Gaye moom lenn la wax maanaam par rapport sperme bi ñu wax ne dañ ko jëlee si si Ousmane Sonko mais quel quoi quelles que soient les circonstances ce dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dafa doon un bi nga xam ne dem na ba tey ak envergure bi nga xam ne tey daf dafa am dafa traversé au delà de nos frontières yamatul rek li nga xam ne moom mooy biir Sénégal parce que tey soo ñëwee biir tribunal fii nii da ngay gis même des photographes qui sont chinois nga gis des journalistes euh, yi nga xam ne tey ay américains lañ nga gis ñeneen ak ñeneen cest dire que c'est pour l'image du Sénégal ce projet et des gens inscrits dans les annales politiques tey mënoo tudd benn procès bi nga xam ne tey euh, jàll na fii tribunal bu Dakar te tuddool sa procès de Sweet Beauté moom également nag des non-dits yi nga xam ne des fois des contre-vérités lañ koy jàppee parce que euh, ki nga xam ne moom mooy euh, soo dégloo kàddu yi ci biir fi nga xam ne mooy audience bi da ngay xam ne carrément le juge bu àtte dossier bi moom il est il est constant maanaam mënoo wax ne juge bi tey fii la far wala fee la far ñun loolu dañ koy seede ah dañ koy wax pour pour pour parce que amul leen li nga xam ne tey gis nañ ko euh, seetlu nañ ko te te mënuñ leen ko wax te mu nekk dëgg bi nga xam ne tey mënuñ leen ko mënuñ leen ko jubal. parce que ba Maître El Hadj Diouf euh, commencé sonal ki nga xam ne moom mooy euh, Ndeye Khady Ndiaye. moom si si boppam moom moo demande à ce que ki nga xam ne mooy maître El Hadji Diouf mu daal di calmé wu ba ba daal di koy jëmal li nga xam ne moom mooy ay kàddu ba daal di koy ah, ah, wax sax ay kaddu yi nga xam ne tey ah, ñu bëri ñu ngi doon nekkoon si biir saal bi ñu ngi ñu ngi doon retaan mais également la la réaction de de capitaine Touré. capitaine Touré qui, qui, qui, est un élément central dans ce dossier. Hein, parce que, quoi qu'on puisse dire, moi, moi, la première personne qui euh, dem en tant que qu'officier de police, ex-officier de police, dans les lieux de surbeauté pour euh, xool li nga xam ne moom moo déroulé li nga xam ne moom mooy enquête am ginnaaw bañ ko désigné mu génnoon nag wax. ak lépp lu nekk dossier bi que le procès-verbal a été modifié c'est un dossier politique avec toutes les les les les les les déclarations de presse qu'il a qu'il a qu'il a eu à faire tey mu taxaw la barre malgré procureur bi lu mu doon ko malmené yëpp il a la a il a avec constance mu jël temps am expliquer les réels faits euh, ce qui s'est passé mais en ce moment daal dañuy déglu rek ki nga xam ne moom mooy le juge mu jox ñu li nga xam ne moom mooy euh, le verdict. ginaaw bi ñuy xaarandi ay plaidoiries yi wala sax mu daal di dàqandi projet bi ba ba suba parce que daanaka ñu nekk ci biir ñu bëri euh, sonn nañ suñu di suñu mbokku gendarmerie ndeysaan ñoom tamit ñu nag ñoom ñoo ñoo bokk liggéey bi ñu sommes tous des sénégalais malgré tout euh, Sénégal lay yem suñu biir lay yem c'est comme une famille c'est comme dans une famille tey euh, ñu souffrir ci ci projet bi dafa bari ñu souffrir su mu ne ñu souffrir si projet projet bi dafa dafa bëri maanaam tey da ngeen dégg affrontement yi dégg conséquences yi yu si ñax seen bakkan problème yi ñi nga xam ne tey ñoo nekkoon seen yaakaaru waajur moo tax ce procès mérite d'être euh, det finir benn yoon damay wax daanaka ñun amuñu sax instant en ce moment euh, envie pour daal di lekk dara pour suñuy biir parce que ñun xam nañ ne yéen ñi nga xam ne yéenay toog di ñuy déglu en moment yéen a gën a sonn ñun xam nañ ne en ce moment yéen seen xel fi mu toll nii dalul parce que ñun ñu ngi dund di gis mais yéen dégg rek ngeen am te teewul yéen a ngi teewlu suñuy kàddu réew mi nag dafa yaatu. su ma ne réew mi dafa yaatu maanaam tey ñu ñuy déglu dafa bëri kilifa bu ne mun na ñëw déglu parce que ñu benn kàddu moo tax saa yu ñu ubbee bi rek dangay léegi sama mbokk waa waali di di di leen rappeler les choses maanaam euh, éthique ak déontologie bi nga xam ne tey ñun jàngal nañu ko au niveau de notre rédaction parce que malgré tout ñun on on duñu du ñu nekk si mukk mukk maanaam si benn parti parce que ñun yoon mayu mayuñu ko suñ defee loolu day mel ni dañu dañu trahir moo tax sànq ma leen wax juge bi moom si biir euh, salle d'audience bi le juge est constant malgré procureur moom beneen parti bi la far mu ngi sonal ñi nga xam ne tey sonal na ay kii euh, Ndeye Khady Ndiaye malgré sonal na ki nga xam ne mooy capitaine Touré euh, après ba capitaine Touré jëlee li nga xam ne def li nga xam ne mooy un remontada laa koy woowee un remontada <laughs> benn réplique ah, moom. ba Gana Messere mu defee remonter la république euh, benn réplique gën a euh, waxtaan wax ak euh, poser même des questions très pertinentes au procureur de la république salle bi yëpp tàccu ba ñi nga xam ne tey mooy ñoo doon garder salle bi dañ koy bañ ci biir salle bi ñu génne ñi nga xam ne tey ñoo fa nekkoon mais le fait que man loo xam ne dama koy ñaawlu rek ci biir salle bi mooy que les journalistes qui n'arrivent pas à faire leur travail comme d'habitude dans les salles d'audience parce que su ñu sa téléphone soo ko commencé jël di bind dañuy bàyyi ba benn heure bi peut-être jot ordre ñu ne la non t'as pas droit ngay manipuler sa téléphone. parce que en ce moment yow sa correspondant bi nekk ci biti yaa ngi koy jox li nga xam ne moom mooy information mais quelque que soit les faits quelles que soient les circonstances depuis 7 heures du matin ñu ngi fii tribunal bu Ndakaaru il fait presque minuit pile 23 heures 59 minutes. monsieur le juge daal di dàqandi projet projet bi dans cinq minutes pour xaarandi ñu xool moom ah, lan lay lan lan yan décision lay lay jël di rappeler également fële nga xam ne moom mooy sa sa sa jigéen soor daanaka instant yi sànq amoon na li nga xam ne moom mooy ay jaamarloo ah, si diggante ah, takk der yi ak ñi nga xam ne moom mooy moom mooy ndaw ñi waaw suñ mënee ibbi ligne bi rek par rapport waxtaan beeg yooyu noonu di ko ñaan euh, ñi nga xam ne dañoo nekk au niveau de la régie la suñu suñu mënee jox li nga xam ne moom moo moom moo xew